xamle anil xutbil kaamili ci xutbu bu mag bi xutbu bu matale bi wal xawsu saamil nekkoon kattalikat boo xam ne itam ku làmboo lépp lu ñu gis ci kattali la mawlaana abdusalaam ibnu misi radiallahu anhu abdusalaam ibnu misi ku siiw la ci taalibi mawlaana cheikh yi ku siiw la wala boog ci jamono radiallahu anhu bokk na ci nit yàlla yi ñu wax ne xutba lañu xawsa lañu radiallahu taala anhu yazkuru min barakaatihi wa ayaatihi wa wasfihi lahu mawlaana cheikh daan na tudd barkeem daan na tudd ay kéemaanam daan na tudd melal yi daan melal ci moom lu rëy li annahu yaxsulu minhu al madada yàlla baaxee woon na ko mu am ci moom madad boo xam ne daf ko daan jëriñ lil waafidiina ñi nga xam ne dañ daan ñëw alayhi ci moom wa istidaamuhu li maqaamihi ak it nga xam ne dañ daan ñëw ci moom ngir màggal ko ngir kowel darajaam yàlla mayoon na ko këbb goo xam ne ku ñëwaan day jëriñ ci moom wali yàlla wu mag la waaye wu yàlla daan may ñuy tëbboo la ci moom itam abdusalaam ibnu misi radiallahu anhu mawlaana cheikh daan na nettali ci moom luñ xamee maqaamaam yu mag yi wa min daalika bokk na ca loolu yëpp loo ciy déggee te nit ci démb ya la cheikh na ahmad tidiane di nettali ci ñoom di wax ci ñoom loo xam ne bu taxuloo nag li Cheikh di wax ci ñoom ñi jamono wante Cheikh duñ xam mooy kan ba mën a jëriñu ca moom kon tegtalu kii tegtale ñu baax ña luñ jëriñu ca moom ci moom lañ koy jëlee moom mi tegtale wa min dalika bokk na ci loolu ca matul Cheikh radiallahu anhu ixbaaruhu xamle yam daan xamle anil waliyu shahir ci waliyu siiw wi nga xam ne wal xutbil kabir xutbu la bu mag saydi abi yazar radiallahu anhu min kamali maarifatihi billahi maulana cheikh daan na wax ci maarifa billahi billahi bu kawe daraja wa qadaai xawaaiji lwaafidina alayhi ak fajub aajoy gaay yi daan ñëw ci moom wa ma xassahu llahu bihi min altasrifi ak li ko yàlla may ci soppandeku ci jamono wal madadi alqawi yi ak li ni ñuy tëbboo ci moom tëbb gu wér gu dëgër lil kabiri wa saxiir ku mag ak ku ndaw wa daif ak ku lott ku mën a doon daan nañ ñëw di tëbb ci moom tëbb yu mag lool la leen daan may loolu nag Mawlana Cheikh moo daan wax ca moom wax yu mag yu ko nit ñi gën di bëggee gën di jubloo ndax di ko ziyaare di yokk wa yaqulu daan na wax ne kullu man qasadahu Mawlana Cheikh moo daan wax ne képp ku jublu waliyu bii fi xaajatin ci aajo bu mu mën a doon tuqudaa def na faj booba aajo kaa inamaa kaanal nag aajo boobu bu mu mën a doon rek képp ku koy jublu di ko jaare rek yàlla dina la fajal aajo bi Mawlana Cheikh daan na wax loolu wa yaxuddu ala ziyaaratihi daan na xiir nit ñi lool ñu koy ziyaara wa taazimihi ak di ko màggal wa muwaalaatihi ak di méngoo ak ay mbiram di dëppoo ak mbiram di bañ a safaandu wanteeg moom loolu yépp ci karaamaab Mawlana Cheikh la ci ay matub maarifaam la ci xàmmeem gu yaatu la ci la daan xamee la jiitu ba kum ca daan wax rek day mel ni moo jamono wanteeg moom moo xamoon léppam ci janoo radiallahu taala anhu wa ka sharhihi ba tey bokk na ca yeey gën a tegtale matub Mawlana Cheikh leeral yam daan leeral li xaali gayrihim ci xaalu ñeneen ñu dul ñi ñu jot a wax min akaabiril awliyaa i ci wëlli yàlla yu mag yi mu leen di tudd di wax seen mbir ka sultaanil awliyaa i lu mel ni ki nga xam ne bu ñu doon seet wëlli yi dañ naan moom mooy seen njiit ci kawek maqaama di mawlaana abdul qadiri al jeylaani radiallahu anhu mawlaana cheikh daan na wax ci moom ay mbir yu bari lool di leeral mbiram mooy kan wabnul arabi al xaatimi ibnul arabi al xaatimi yi nga xam ne moom itam wëlli yàlla yi aarifuuna billahi dañ wax ne ñoom ñëpp mooy seen njiit Mawlana Cheikh daan na wax ci moom wax yu rëy lool wa abil xasani chazeli wëlli yàlla wu mag bu ñuy wax abul xasan chazali yi mawlaana cheikh daan na wax ci mbiram lu bare bare bare wa abil abbasil marti yi moom itam noonu la daan waxee ci mbiram wa saydi abi madyan al qaws ko kit kenn la ci wëlli yu mag yi mawlaana cheikh noonu la daan waxee ci mbiram wa saydi ahmad ibni yusuf ahmad ibni yusuf it ci gaa yu mag yàlla mawlaana cheikh daan na wax ci ay mbiram di wax ci ñoom ñëpp seen mbir wa gayrihim ak ñu dul ñoom radiallahu anhum yal na yàlla gërëm leen ñu xam ne ñu baax la ñu xam ne ku jublu ñu baax ñu yàlla maye la ci ñoom yu baax yi yëpp Mawlana Cheikh daf ko daan wax ci ñoom kon falaa nutiilu duñu guddal bi zikrihim ci di leen tudd di leen tudd di leen tudd waaye buñ naroon tudd li Cheikh daan wax ci ñoom ak ñim daan wax ci ñoom ñëpp ñooy ñan dana gudd lool waaye ñu tudd ci loolu rek ngeen déggee ci ñun tudd sami'tuhu dégg naa ko moom Cheikhna Ahmad Tidiane muy wax moom Aliou Harazim mooy nettali mu ne dégg naa moom Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu muy wax yazkuru di tudd julla man tawalla alqutbaniya min ba'dihi sallallahu alayhi wa sallam yazkuru muy tudd julla man tawalla li ëpp ci ñi nga xam ne jot nañu alqutbaniyata maqaama qutbaniya ñi nga xam ne jot nañ ko min baadi yi ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mawlaana cheikh di leen tudd di leen lim di leen lim illa waqtina haada ba yegg si ci jamono moom cheikh bi muy bind téere bi moom Ali Harazim mu ne ba jamono bii ki ko yor mawlaana cheikh daf ko daan lim ba yegg si waaw su ma sëriñ Cheikh Hassan Dem radiallahu anhu dégg naa mu tudd tur ya di ko wax fu mu jëlee xam-xam ba ndax daf caa bokkoon wala waaye dégg naa muy tudd ci aadama béyk ci muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dégg naa mu tàmbalee ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax béyk ci Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu dégg naa mu tàmbalee di wax ci Cheikh Ahmad Tidiane ba yegg ne man jamono bii may waxee ak yéen ki ko yore sax xam naa ko waaye duma ko wax moom Cheikh Hassan Dem radiyallahu anhu muy wax loolu ah mooy taalibe Cheikh Ahmad Tidiane de ndax daf ko jàngee ca moom wala ndax daf caa yegg wala njort bu gën a rafet bu ñuy am ci nit yàlla ne jot na ko ci maqaama daal nañ ko njort Cheikh Hassan Dem itam radiallahu anhu nafaana allahu bi barakaatihi dégg naa mu lim leen ba mu yegsee ba ci jamono bi nag dafa ne naa noppi fii nag balaa may feeñe li mbóot xam naa ki ko yore tey tey waaye duma ko wax mbira nga ci biir radiallahu taala anhu wa nafaana allahu bi barakatihi wa kullu man dakarahu mawlaana cheikh bu daan lim nag ñooña yore maqaama ya yasifu xaalahu day nettali mbiru waaja kum ci tudd rek wax mbiram leeral mooy kan leeralin yoo xam ne du bàyyi dara ca moom wa ma xasala lahu min almaqaamaati al aliya la waajooja jot ci ay maqaama yu kawe lépp daf koy wax wal axwaali ak lu doon ay xaalam yoo xam ne asaniya yu kawe daraja la kullun lu mu ca doon rek daf koy wax ala xasabi ma awlaahu mawlaahu di ko wax na ko ko boromam joxe woon waf tofaahu na ko borom ba tànnee woon ba jox ko maqaama ba lépp la mawlaana cheikh daan wax wa ardaahu yal na yàlla gërëm loo ko wa hada kaana minhu radiallahu anhu qabla hada al waqt lii nag bu ko Cheikh daan wax mu ne daan na ko wax de njëkk mujj njëkk nag wax wii may waxee ak yéen te la jiitu la daan wax mbir yi qabla hadal waxtu Mawlana Ali Harazim mii wax wax ji moo wax ne Cheikh daan na wax lii waaye njëkkoon jamono yii nag te la jiitu woon tàmbali mbiram ci la daan waxee wa amal aana waaye léegi nag fal gaalibu li ëpp ali ci moom Mawlana Cheikh ak sukkuutu mooy noppi rek waxatul dara radiallahu anhu wa ardaahu wa mattaana bi ridaahu tàmbalib wëli yàlla yay feeñ ca moom la muy wax ak la muy jëfee ñii danañ gis lii ñee gis lee ñee gis lee ku nekk ak la muy gis te kenn ku nekk la muy gis mu nga ca këm koy gis waaye ku nekk la ngay gis bokkul ak la sa morom di gis te lépp a ngi ci kenn ki kon kenn kooku mooy kan kenn kooku la yàlla dénk mu yore matug borom bi ci jamono ngir war a jëriñu ci jëriñu yàlla mi nga xam ne mooy naafee danay dem ba am jamono nag gisug ñëpp day bennoo ci moom rek ne waajaa ngi ku baax kaa ngi ku mat kaa ngi rek waaye lam daan junji ñu cay foogee mooy kii mooy kee dana dem ba dootul junji dootul wax dara day noppi rek kon tàmbaligu wëli yi ak mujj ya dana wutee ali arazim mawlana radiallahu anhu moo nettali cheikh radiallahu anhu kon nag cheikh a ngi ay taalibee ngi topp nañu cheikh di nuru nuru cheikh ngir bëgg a doon cheikh yal nañu yàlla teg ci yoon wa gën a jub wa gën a leer wa gën a mat wa nga xam ne ku ci yëngu yàlla gërëm na sa yëngu te dina la yeggale ca teeruwaay ba nga xam ne ku ca teer rek yaay ku mag ku mat ka ci sa jamono yal na yàlla may ñu lii ci darajey ku mos a mat ñu topp la ngir mottale ko ci yow ci barke képp ku mos a toppe dëggu ca toppam nga ba jot ca kam toppoon lam doon yóotu yal na yàlla may loolu yaatal mbooloo mi dundal ko barkeel ko def ñëpp ñuy seen tànneefu jamono ci lépp luy xiwal yu feeñ ak yu nëbbu yomb na yàlla yal na yàlla def loolu te yàlla fayante képp koo xam ne sunu mbaax jaar na ci moom moo xam wax la jum ñu wax moo xam dénkaane la moo xam ñaanal la moo xam dimbalam ci lu mu mën a doon képp ku ñu dimbalee ci lii di yoon wi ñu tegu rek yàlla mu baax mi yal na yàlla fayanteeg moom ci lii جازى الله عنا نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم وجازى الله عنا جميع ساداتنا المجيزين لنا والمفيدين لنا والمرشدين لنا والمربين لنا والمرقين لنا عن إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد فاطمة والرحمة سبقنا سبق ولا
dolli ci lañ ko santoon tey bégal suñu mbokk yi nga xam ne ñëw nañ fekk suñu ci tariqa bi ma leen di bégal rek ci ne wax leen ne bunt bu ngeen duggee ci foofu la ndaxte alxames bi passé yàlla daf ma baaxee ma tëdd ma julli tisbaar ba pare tëdd di noppalu par nelaw dab ma ma nelaw dabee nag ma gis ñu won ma ci gént Cheikh Ibrahim mu toog ni mu toogee nii mbooloo wër ko fekk maa ngi wax ak sama beneen xarit ci wet am lu ma ko doon wax mu mel ni daal ku gëmul li ma ko doon wax ma dégg Cheikh Ibrahim daal di addu ne jëlee naa ci Cheikh xam nag Cheikh Tidiane lay wax xam nga Cheikh Baye ne jëlee naa ci Cheikh dëggal loolu ma doon wax ne it ni ko ma jëlee ci moom ne képp ku topp sama ginnaaw taxel am ku nekk ci mbooloo mi nekk sëñ bi loo wax mu daal di tontuwaat ne képp ku topp sama ginnaaw cexe nga mu daal di fotas ne alhamdulilahi rabil alamin ci biir gént gi loolu day loolu sax tax na moo taxoon aljuma ma ñëw fekk si wasifa bi ngir mu jiite ma ngir it ma topp ci ginnaaw bi ma yeewoo li sama xel daj dama ne mbir mi de li muy tekki mooy ne bon képp ku mu jiite cexe nga képp ku topp ci ginnaawam muy dox cexe nga képp ku topp ay ndigleem ak i santaane ak i jëfam cexe nga képp koo xam ne itam li nga xam ne moom lay jëfee nga jaar ci tànk yi muy doxee texe nga ma ne bon xataa ki nga xam ne sax dafay ànd ak moom di dox parce que nee nañ boo ànd ak sa sëriñ di dox waruloo ko jiitu waruloo leroog moom da nga war a topp ci ginnaaw ma ne ki nga xam ne daf ko jiitu sax ngir fegal ko li li ko mën a lot ci kanam wala leroog moom ngir fegal ko li ko mën a lot ci ndeyjoor kooku sax te bu jàppee ne moom ci ginnaawam lay dox ci ndigal lay doxee kooku texee kon daal man noonu laa ko euh, jéemoon taabire xëy na nag li des ah moom euh, moo ñu koy gën a xam may daal maa ngi ciy bégal mboolem euh, taalibe yi ak soppe yi nga xam ne yëpp teew nañ fii te xam ngeen gént moom duul yow yaa koy defal sa bopp luñ lay andil la walilahi alhamdu ñun ñëpp ñu sant ci yàlla alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Ibrahima Sow ñu ngi wax alhamdulilah ci loolu ndax de su ma bëgg-bëgg de mooy ku ma àndoon rek na nga texe loolu de su ma bëgg-bëgg la tax na it fu ma yëgee ne lii ku ko def texe maa ngi koy jàngalanteeg ñi àndoog man jotaay bii toog di jàngalee yonent nee na yonent nee na sama tijaan nee na ci li yàlla wax ci li yonent wax loolu yëpp de tegtal la ci ne xanaa bëgg naa ñi ma àndool texe kon ci li feeñ maa ngi bëggal képp ku àndoog man texe waaye ci li nëbb it nag yàllay xamal jàmm bu ko sopp bi nga bunte bu wax loo gis mënit wàllu yooya mën naa caa wax ni mu mën a waxee ci wàllu ubbi téere yi jàngaleeg àndoog yéen ci sikar yeeg àndoog yéen ci lépp lu ma yëg ne rek gërëm loo na yàlla ak yonent bi man de gis naa yàlla subhanahu wa taala muy woote ci néeg ndax yàlla dinañ ko gis jëmu doomu adamam te yonent wax na ko sallallahu alayhi wa sallam nee na gis naa yàlla ci melokaanu waxambaane wu saxagul sikkim yonent wax na loolu gis naa ko muy woote mu ngi cib néeg ñu ngi koy wuyu ci par benn benn maa ngi naan xé yàllaa ngi xisaab jaam yi nag maa ngi tiit bu ma woowee ci biir néeg bi ba di ma xisaab fu ma jëm mu ngi toog ci lal mu ngi toog ci lal ma ñëw toog ci suuf waaye lam wax ak man mbóot la ma jox mu rëy ma teg ko ci sama dënn mu ne ma dénk naa la rooxub ñu texe ñi ma génn ci biti fekk mbooloo mu toog ma yëg ne naaw na jog naa ba yëg ci kaw jaww ji jullu ci ñeenti gox yëpp di yëgle ñëw imam mahdi yu ak la ca topp ak la ca topp kon man it maa ngi digal képp ko ànd ak man rek ne yàlla de wax na ma lii te it nag alhamdulilah yemalewu ma ko ci ne ku jël ci man wirda demal texe nga bàyyil sa wirda dama ko jàllale ci ne lii la yonente nekkoon sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yi lii lañ àndooyee nag moom Cheikh Ahmad Tidiane ci lii la nekkoon ñi àndoon ak moom nii lañ àndooyee ak moom Baye ci lii la nekkoon ñi àndoon ak moom ci lii lañ àndoon ak moom maa nga cay jéem a jaar ak ñi ma àndoon fonk julli yi fonk koor fonk génne asaka dem am nañ alal dem màkka dem am nañ alal ak wér dimbalanteeg way juri ci lu leen gërëm loo lépp lu yàlla santaane daal ñu jéem ci lu ñu mën di tudd yàlla suba ngoon te di ko def ci mbooloo ni ko yonente mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waxee ñu roy ko Cheikh Ahmad Tidiane roy ko ci Baye man di lii laa àndoon ñu ma àndoon ak yeneen yu ca topp ak yeneen yu ca topp nag ci lu mu mën a doon ci yu mel ni li nga wax alhamdulilahi xaq alhamdulilah jërëjëf ñu ngi war a jàng sunu taaj aljamia lil usul fi ahadis rasul sallallahu alayhi wa sallam wala jawahirul maani jawahirul maani wa buluqul amani bi waaye dañoo am gan gu mag gu war a yegg si ban heure la yegg si nag Kaolack la jógee mu ngi ci yoon di ñëw di Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim Niass nee na mooy jàngale si dars bi ndem yegg si wul mu guddee lool bu guddee itam nee na da fii lay jaar si fii lay jubal si bu jógee Kaolack mel na ni yéex na faa jógee nag waaye lu mën a xew daal wax na ko te moo ñu jàngaloon dars bu njëkk bi ci Jawahir Maani itam kon suñu gan gu mag a ngi ñëw waajaloon ngeen tari ci gàmm gi xanaa ñu jox ñu waroon tari ak laaj ngeen jotoon a bind ñu xaarande koogum ko ci bu mu yegsee rek
foofu mu ne omin kamaalihi bokk na ci ak matam gi li tegtal ay matam li ngeen doon jàng ba fii loolu yëpp li doon tegtal ay matam la mu ne bokk na ci loolu itam li may wax si nii wa wa wa uluwi mansibihi ak koweeg makaanam wàccuwaayam asharifi bay aji tedd bokk na li tegtale loolu maa uutiyahu la joxeef na ko min maqaamil xilaafati ci maqaamam xilaafa mu ne li gën a tegtalee màggam moom cheikh radiallahu anhu mooy li ko jagleel maqaamatul xilaafati xilaafatu anillahi wa an rasulillahi salallahu alayhi wa sallam xilaafatu anillahi yaa ngi koy gisee ci boo indee kalimatu tawxid yi bind alif ga mooy xadratul itlaaqi nga bind laam muy awalu tajalliyaati zaati laam nga bindaat waaye laam ak ñaareel googu takkandeeru laam bu njëkk bi la moo tax mooy xilaafa boo lay junj foofu xalifatun an rasulillahi sal alayhi wa sallam wa xalifatun an illahi tabaraka wa taala wa xutati tasrif yi ak jagleel sappa sappandiku lu ko neex bu gaan sappandiku ci jaam yi te loolu da ngay ci gis ay tegtal ci kanam ci bu ñuy wax ci ay karamaatam la ca gën a fës mooy benn waay boo xam ne daggkati yoon la woon mboolem gox bi mu dëkkee kenn ñemewu ko fa ndax ku fa jaar ak alal wala nga jaar fa sa sa yaxantu mooy looy jaay wala looy jënd ay gaayam nangu ko mu doon njiiti ñu def kat njàqum yépp ko fa ku ko am ay taalibe cheikh yu jógee ci gox booba ñëwoon di ziyaara ci cheikh bu ñëwee ba ak si ba ziyaara ba pare bay dem ne cheikh ñun day suñ muqaddam bi ñu boole toon dafa génn àddina te nga dañu bëgg nga tànnal ñu koo xam ne ci moom la ñuy wéeru ji ci sa muqaddam yi nga xam ne tànn nga leen cheikh joxañ leen bandi boobu leen kooku mooy suma muqaddam ci yéen suma xalifa ci yéen saa yu xool ne ay cheikh xanaa dafa xamul waa ji contrebandi bu mag bi nga xam ne cheikh ne kooku laa wax kooku laa wax dem leen gars yi daal di ñëw bu ñu ñëwee ba ak si foofa gis ba ñi nga xam ne ñooy soldaar yi waa ji ñu yëkkati jum bu bu weex wala ne man dañ jàmm ñu indi gars yi ñëw leen lu ngeen amee ñu ne ko ñu amewuñ dara daa lañ amoon yëpp dañ ko suñu sëriñ dañ dañ doon ñibbi waaye daf ñoo yónni ci seen kilifa bi ndax mën na man ndax mën nañ ko gis ñu ne bisimilah mu ànd ak ñoom ba ak ne ko aj yi dañu ne dañ leen a yónni ci yow mu ne ku leen yónni ñu ne ko Cheikh na Ahmad Tidiane radiyallahu anhu moo wax ne yow yaay xalifaam yaay muqaddamam ci ñun mu ne leen man ñu ne ko waaw mu ne ko xubban wa karamatan yaa ci yàlla yi laata génne àddina turam a ngi ci buxyatul mustafid ñi nga xam ne daje nañu cheikh ba cheikh soppandiku ci ñoom moo tax bi mu waxee ne cheikh xuttatu tase bi ñu ko jox moo tax lu ko neex rek mu soppandiku benn yowut doon na paaseel cheikh yërëm yëreem ñu wax ne cheikh ku ko gis al ba si altine ak ba si ajjuma doo dugg safara yowut bi ne biñ ko paasee ba pare waa ji ko waa ji ko waa ko yónni nit pour mu yóbbul ko cheikh yowut bi ne jox leen ma yëre yi ma yóbbu ko lim mu ne lim mébétoon ci xolam mooy na gis cheikh ndax boo gisee xëy na moom li mu wax noonu may tam man danaa ci dugg mu dal yóbbu mbub mi ci bésab altine bi cheikh gis ko kooku bi ñu laata deyaat daanaka muqaddam la ci tariqa bi gëm na ba islaamam wér ba mu dee ci limaan benn ba cheikh mas naa toog ba digg bëccëg mu oo bëkk néegam ne ko jëlee sama chaise bi nga dem ca marché ba nga seet benn carrefour boo xam ne yoon yëpp a ngi koy daje cël yëpp a ngi koy daje nga teg ko foofa ci biir marché bi mu teg chaise ba foofa Cheikh ñëw toog ci toog rek waxut ak kenn ku ko nuyu bu nuyu la waaye waxut ak kenn toog toog toog toog toog toog ba mu yàgg mu daal di jóg rek ne warëy daal di dellu ci jaamu yëpp ci këram ñu laaj ko ne ko sang bi li la ko waral tey mu ne xaatif daf maa waxee tey ne génnal tey bés bi ku la gis rek du dugg safara ma bëgg nag gis googu yaatu moo tax may naa dem ba ca marché ba foo xam ne yoon yëpp fay daje ndax ñu bëri yi mën naa gis ndax ma mën a yóbbu ñu bëri moo tax mu ne itteem ittee ju kawee la moom cheikh radiallahu taala anhu wa waliyahu min aniyabati bokk ne tam li tegtal matak wilaayam liñ ko méngalee ci mu mu nekk uute kuutalu borom mbir yi ndax xam ngeen ne yàlla joxul kenn loxoog loxo ku ne xam na ne wërsëg bi nga lekk tey añ bi nga añee yàlla la jox wërsëg bi waaye yàlla new la am am na loxo yu muy jaarale ay wërsëgam loolu nag ni mu ko defee ci zahir noonu la ko defee ci baatin moom la yoon bi salaa sallam daan junju ne innama ana qaasimun wallahu almuti gars yi ñëw di ko laaj ci mun a na ngeen def nànk nag na ngeen xam ne man séddalekat laa de waaye kii joxe moom yàlla rek la cheikh itam mooy séddalekat bi foofu jox nañ ko ci ndigal ak itam muy atte ak itam al amru nafisu mooy atte bu wéy lu mu wax rek loolu dafay am dafay wéy dafay dafay sotti al amimi bay aji matale loolu nag dafa matale waxuma moom sax waaye saabaam yi yu dem ak ñu tey waxtu wu ne yéen a ngi gis ñoom ay loo xam ne bët bu sëgee gis leen gën a yéen te duñ dara lu may ay taalibe cheikh kon nag gannaaw taalibe bi ñoo mën a mel noonu kon moom naka lay war a mel benn waaye laaj na ko muy waxtaan ci jawharatul kamal di wax ay ngëneel yu nekk ci jawharatul kamal lu bëree bëree bëri waa ji ne ko waaw li ma bëgg a laaj mooy ndax lii ñu jox kuy jàng jawharatul kamal mu ngi dellu ci baat ya wala ci maanaama wala waxtu wañ koy sikkare wala ki tax ñu koy sikkar ci yoon bi sallallahu alayhi wasallam ci lan la dellu ci yooyu mu ne ko dellu ci yooyu benn li ngeen am ci loolu yéen a ngi ko amee ngir man man la yàlla jox mu yaatu moo tax ma jox leen mu yaatu te loolu soo ci dana koy indi misaal bu bu yomb suñu doom yi ba baaba la min mu ndaw mii ban lekk lay lekk lekk Cheikh Ibrahim ban lan lay tëdd lalu Cheikh Ibrahim yan yére lay sol yére yi Cheikh Ibrahim sol ci lañ koy xottil muy sol lu mu defagum dafa am baay bi yàlla may muy dund ci loolu ñun tam cheikh mooy baay bi ñu yàlla may moo tax fa mu toll rek ñun dañuy jëkk rek nekk foofa nekk ba ñun ay doomam waaw loolu mooy mooy mbir mi ñu ne cheikh mën naa xëcc ci xewal mën naa joñ lor jël jël bi nafin wa nafi darrin lu tax parce que kii jëriñ kii lor mooy yàlla bu la yàlla tegee nag ci place jëriñ ak lor il faut que nga jëriñ da nga lor lor gi itam ni muy ñëwee mooy képp ko lor rek mooy loru moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam da juñu ne kullu naasi yadxuluna aljannata illa man aba ñëpp fay dugg aljanna lu may ku bañ ñu ne ndax kenn dana bañ dugg aljanna yow sax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne waaw ku ma topp bëgg ngaa dugg aljanna ku ma bañ a topp yaa bañ a dugg aljanna kon li ma wax ne cheikh dana indi njëriñ dana indi lor njëriñ ji mooy ku ko topp rek fa mu ne la lay yóbbu lam am la lay jox boppam la lay def waaye ku bañ nag moom yaa lor sa bopp kon lor gi ci yow lay jógee moom la bàyyi di jiine wa inni ya rahmaniyatullahi inda man yuhibbu wa naaru li saridi mujadili man maa yërmandi yàlla ñeel képp koo xam ne yàlla bëgg na koo yërëm ci man waaye itam safara laa ci ñoo xam ne yàlla dana sori da leen a sori ci man bañ teg ma loo xam ne du noonu xam nga ki ko sori loolu wax ji mu mel ni moom mooy wax ne moom moom safara moom aljana waaye déedéet aljanna bi wax noonu ki muy wax ne moom mooy yërmande yàlla lu tax parce que dafa ànd ak yow ci yërmande yàlla di julli ngay julli muy oor ngay oor muy aj ngay aj muy asaka ngay asaka muy dunda àllam ngay dunda àllam muy sikkar ngay sikkar kon kay kookal lu mu mos mu nga caa mos waaye nag naarun fu mu jógee mooy nag ku ko ku ku ko ku ko ku ko noonoo songoo ak moom yàlla ngay songoo man aadaali waliyan faqad aadantuhu bil harbi ku bañ sama waliyu na xam ne man song naa ko geer man na dama ko yëgal léegi song naa ko geer xam nga ne ku yàlla geeral te yërëmu la il faut nga xalaku moo tax mu ne rahmaniyatullahi inna man yuhibbu wa naarun li taridi parce que taridi bi dafay nekk noonu te bu noonoo waliyu yàlla yàlla noonu ko te ku yàlla noonu fuuti nga wa yada yarfau yadfau dana jañ ay tiis wa yadau bi himmatihi itam dana suufeel ay nit ci himmam ju mag jooja wa yarfau dana yëkkati ku ko neex wa yuraqi te mu yéegal ku ko neex ci lan nag ndax ci moom la ko jógee mu ne def bi iznillahi même yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bi mu indee alquran indi l'islam itam yàlla daf ko wax ne ko daayan ila allahi bi iznihi ci ndigalam kon mbir mi nekkul ci ki ko jonjoo mais ci borom ndigal la la nekk soo ni boo ñi liggéey ci administration wala ci société bu weer dee da ngay dem ci ab agent comptable ngay dem kenn du ko tudd ci conseil d'administration affaire bi bokkul ci gaa ñi nga xam ne ñoo gën a siiw ci place bi waaye ñoo ñëpp bu weer dee ku ca naru fayeeku da nga ñëw signé ci kanamam mu xool sa tournée ay yow la nga ne waa mën a signé bii mu signé te lu mu ci doon boo ko xasee indi kayit ji moom signé rek la ci ciy def buñ buñ signé pare signé fii rek mu yëkkati xaalis bi parce que est ce que moom mooy jox xaalis bi joxu la ko parce que li tax nga mën a jot xaalis bi mooy kayit googu nga ko indil kayit googu jógeewut ci moom moo tax moom li muy jege jege jege jege affaire bi sañ sañ te yóbbu ci xaalis bi wala këram su ci jëloon benn julle te ñu yëg ko kasa la yend wala mu faran moo tax mu ne daayan ilallahi bi iznihi che mu ne cheikh itam lii muy def lii lépp mën ngaa delloo bi iznillahi jooju ci daf i jël bi naf in ne bi iznillahi daf i darrin bi iznillahi yadfau bi iznillahi wa yadau bi himmatihi bi iznillahi wa yarfau wa yaraqi bi iznillahi lépp ci ndigalal yàlla lay doon wa yu wa yunazilu wa yuwalli mën naa wàccee ku ko neex mën naa fal ku ko neex loolu ay taalibam sax def nañ maam alaaji toog na di jàngale ca lew na buur siin romb koog ak junjungam ñuy tëgg maam alaaji yónnee ci moom ne ko ne ko fii jàngukaay la dañu nekk di jàng nañ bàyyi seen tëgg gi ba jàll mu ne kan moo sañ a aaye buur buur siin tëgg tëgg leen waay maam alaaji ne ko Cheikh jàng na fudd sa ndig demagut lu mat ñetti mètre mu daanu ñu àndoon ñëpp daanu fas yi mel ni da da da leen a xabtal ñoom ñëpp ñu daanu ba mu ñëw naan ko baal mu ne ko yéex ngaa wax baal ma di Cheikh def na li muy def ba pare toog na di wirdoo takkusaan fekk am na jenn janax ju daan yàq ay téeréem mu wax ci xaatiram ne Cheikh janax jii ma doon yàq suma téer teel ma ko janax ji taxaw fa mu taxaw moom alaaji di continuer di wirdo ba wirdo jeex mu ne ana Ibrahima bàyyi na ko la bayka mu ne ko kaay Cheikh jàppal na ma suma janax ju doon yàq suma téere kon kay xaw ma kan mooy werante ne cheikh mën naa yëkkati mën naa suufeel waaye du ñu mbooloo mii ndax fe ku nekk feeñu na la ci melo woo xam ne buñ doon nekk ni tey li xew sax waxuma démb yooyu waaye li xew tey fii fii fii mooy kon ku nekk sañ ngaa wax di ko wax kon daañ daañ tudd lu bare bare bëri ci jotaay bii tey waaye nag laysa kullu ma yuqaalu yuqaalu wallazi la yuqaalu laysa ma yuqaalu mu ne wa yuwalli bi amrillahi ci ndigalal yàlla wa yunazilu wa yuwalli bi amrillahi subhanahu wa taala wa yazilu dana rëkki ala xasabi ma sarafahu sarafahu fii mawlaahu bu ko neex mu rëkki ko def na ko ci ay muqaddama yu mag yoo xam ne jege woon nañ ko ba mu leen bindee dara lañ xamul bañ tuubee mu delluwaan benn affaire loolu wàllu yu yi ko jiitu woon def na ci lu bari benn wàllu yu dafa ñëw dëkk ci benn dëkk borom xam-xam yi dëkk ba gis ko rek xeeb ko nag ba kii ngeen di topp ba kii dafay dara lu gaa sa xam-xam si moo tax ngay wax ne kii du dara demal ba xam bu subaa da nga jàngaleen de waa ji dem këram julli jot mu war a julli fatiha sax mokkalatu ko fatiha sax mokkalatu ko mu tiit di def tawassul di ñaan di balu di balu ba gént ñu ne ko ah yow yaay tooñ walu yàlla yi kay kooku def tasarruf ci yow feeg delloo la sa xam-xam bi dootoo jàngale de mu ñëw ci moom ne ko dama bëgg nga delloo ma suma xam-xam bi mu ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko demal sa kër am na genn ganaar gu fa nekk genn séq nga rey séq googu nga jox nit ñi bu ci lekk na jël xolu ganaar ba xolu ganaar bi nga toggalu ko nga lekk ko sa xam-xam bi dana dindi waa ji dem jël xolu xolu ganaar bi toggalu ko lekk ko mel ni mës ta ñàkk xam-xam mu des na ko sañu mu ne ko xam-xam su yem ci xolol ganaar borom war ta weddi kenn waay kon dana méngale dana yëkkati du ko neex dana ko def te lépp nag ci borom ki moom affaire rek ku ànd ak ku aye rek aye fa xukmuhu naafidun anillah atte moom day wéy ci ndigalal borom bi wa amruhu bi amrillahi ndigalam itam ci ndigal yàlla lay topp wa amri bi waa ji waxoon na ko ne wa amri bi amrillahi in qultu kun yakun man sama ndigal mu ngi aju ci ndigal yàlla bu ma ne nekkal rek mu nekk min gayri xawlin minhu wala ixtiyaar te mbir mi nag itam li ci doy waar mooy ne du kattanam du tànneefam du moo tànn mel noonu du kattanam moo ko àggale foofu waaye yàlla ko tànn bu tànnal boppam def ci moom li mu def moom la moom la bàyyi daan wax ne yàlla maa tey lay jëfandikoo maa tey nii laa ko bëggee def naa ko fi ku ci mën dara tous wa zahara tasrifuhu fi umarai zaman wa wulaati l awaan mboolem ñi mu dëkkaloon ñëpp jëbbalal nañ ko ko même Moulay Rachid moo doon buuru Marok ci jamono jooja kooku gannaaw ba ko cheikh jaarale fi mu ko jaarale bam bam bam bam doon lim doon ci la doxoon buñ ko laajee mu ne man man tijaan la sama kurus bi tijaan la sama mbaam mi sax tijaan la sama baax la bi may war sax tijaan la mu mel ni dafay yóote wala waaye dafa gis cheikh cheikh baax la yi mu daan war ci ci faas fu mu indee baax la ba war ko rek waa faas ne kii fu mu jëlee lii kenn xamut fan la baax la yu rafet yooyu fan la koy cheikh di jëlee mu ne ko nag damaa bëgg nag baax la yooyu utal ma ci benn cheikh nag daal di koy utal benn baax la ba ko waree ñu ah sa baax la bi moo tax mu wax ne ana tijaan yoon o baax la ti tijaan yi mu ne mbir ma nga xam ne siiw googu mu siiw nag siiw na ci fu nekk ak ci ku nekk xat caa siiw na wa zaa tamu tasaaroo zaa ci lañ jëlee almirja ak yi rajo moom mooy tasaare xabaar yeeg yooyu zaa yu zio mooy tasaare na fa mala al afwaaha mu fees xol yi wal asmaa ak nopp yi fees xol yi fees nopp yi washtahara te mu siiw ala alsinati alqawmi ci làmmiñ yi gaañi min man yun sabu ci nga xam dañ leen di éer dañ leen di askane lil kashfi ci am am kashf feeñ na ci ba Sidi Ibrahima Rayaahi taalibam ba nekkoon Tuunus toog benn bés am benn cëggi tàndarma bu rafet buñ ko indilee ci toog ne ko sa ta bii mooy bi njëkk a génn ci sa tàndarma ji mu ne ah cëggi gii daal moom kan elloo ko lu mooy Mawlaana Cheikh radiyallahu anhu mu nga tuunus de mu sànni cëgg gi rek mu dóor ci kanam Cheikh foofu ci naaw yi waaye xoolal waa ji mu ne eh lii de suma dafa baati la Ibrahima Raaxi la de boobu fax amul email amul ci saa si mu ne ko sama waa ji moo def lii kon feeñ na ci gaañ yi xatta al awaam xatta ñi ñi nga xam ne xamuñ dara sax xatta ñi xamuñ dara sax feeñ na ci ñoom wa qad wasafahu baadu al muhibbina وهذا الأمر قد شعوذها وأمل ملأ الأفواه نعم أي نعم بأمر يأزل على ما صرف في ملاه مكنه أولاه فحكمه نافذ بأخ لي من برم دفيوي تندقل ليالا وغير ح- من غير حول من ولا اختيار مم لا وخني du moom du so du coobareem di tànn fa bal bi qudratil aziz jabbaar mu ngi amee loolu ci kattanal ku mag ki nga xam ne mooy yàlla ولما استمر من تصريفه وانتشر وبزغ للعيان وظهر تصريفه li feeñ ci loolu ci tasrifam yu bëree bëree bëri bokk na ci waa jooju nga xam ne dafa amee bor ay libi door yu tuuti la amee ci bor waa ji sonal ko lool ba ki ki ko ki ko ki ko ki ko ko lebaloon topp ko guddeeg bëccëg di ko fayeeku te mu amul lu mu fayee mu nekk ci loolu ba benn bés rek cheikh oo ko mu ñëw mu ne ko kaay ji leen doxan doxantu topp ma waa ji topp cheikh fasu cheikh bi tànk bu yëkkati rek dibi dara urus yi di di di tasaaroo waa ji ne man yaakaar cheikh daf ma bugg a faye sama bor te ma jël ci libi doole def sama poos moo ne ba caag mu ne ah lii xëy na cheikh daf may nattu rek daal di toog bàyyi affaire bi bi mu ñibbisee waa ji ñëw fokk si ko waa bi mu ñibbisee ba pare rek bu mu déggee ne waa jàng ñëw rek mu ne ba daal di Cheikh jox ko benn kii ne ko boo demee nga def ko bi mu ko defee rek sajaada bi mu toogoon yëkkatiku nii mu yëkkati rek gis ci junni di bi door te mu ne amoon matu matu téeméer mu tibb ca ñëw ne waa ji sabar bi ñaata la mu ne ko nangam la mu daal di koy compter ba mu jeex na ko pare nañ mu ne ko waaw mu ne salaamaaleykum man man man ma desee samay samay li bi door man mu ne kon hey, man su ma deloon benn li bi door foofu nekk yàqu naa Cheikh dafa ma doon naftu su may daaloon foofu rek foofu la mooy bàyyi waaye bi ma delloo parce que loolu nag li bi Cheikh di jublu moo di ne booy ànd ne yàlla tax feeg yàlla ngi tax rek loo bëgg ci ànd boobu da nga ko am waaye boo ci gisee sa bopp wala nga yaakaar ne lii kat dañ ma ko defal parce que dama ànd ak moom su ko defee mu seeti keneen ko ànd ak moom te àddina moom taxul nit yàlla yi jóg yonent yàlla Isa dafay tukki oo benn bëkkaneegam ne ko bu subaa na nga jënd ñetti mburu ak seen rënd dafa am fu ñuy dem ëllëg waa ji jënd ñetti mburu yi wax ñëw ci waxtu nu ko xam ne ci la ñuy départ suba teel ñu départ ñu demee ban naaj yu xaw a jóg mu ne ko dañ dem ci kër gee ñu xewlu ñu ndékki waa ji daal di indi ñaari mburu ak li ñu àndal ah Seydina Isa ne ko mburu yi ñett la woon de ana ñetteel bi mu ne ko ah man de xam xam dafa wadd mu ne ko waxal ma dëgg rek ana ñetteel bi mu ne ko ah maa ngi xaw ma ci dara fi ñu waxee noonu benn kéwél romb Mawlaana Seydina Isa ne ko ay kéwél ñëwal ci aw ci ndigal yàlla mu ñëw mu ne ko rendil kéwél bi mu rendi lakkal ko ñu lekk ba suur mu ne kéwél gi jógal ci ndigal yàlla kéwél gi dem mu ne ko maa ngi lay lentalu ci ci ma royal fiol gi dëkkal ma ko mburu mi fu mu dugg mu ne ko maam ñu demati ci biir géej gi te jàll benn bato ba mu xiif ñu xiifati mu ne jën jëndal jën aw jën wu mag génn mu ne ko lakkal mu lakk ba ñor ñu lekk ba suur mu ne ko jallul fa nga fa nga jóge woon jëlu daal di sabat dellu ci géej gi mu ne ko maa ngi lay lentalu ci ma defal lii doomu waxal mburu mi ko mu ne waay waay xaw ma ko waay ah ñu dem ba costé ci benn île ñu fekk fa ñetti jóori urus Seydina Isa ne ko ah ñetti jóori urus yi dañ ñoo ko moom waaye problème am na mu ne ko ban mu ne ko ñetti jóor yi dañ ko waroon séddoo man ak yow ak ki lekk mburu bale mu ne ko ah ay la aween mburu mi ma ko lekk ah yow lent naa la ci yàlla lu ma xam rek mu ne ko damaa rusoon rek xas naa ko lekk te bul wax sa ordre rek a tax nga génne mburu mi ne ko may naa la sama wàll ñaar yi ak sa bos jël ñett yëpp jël seetal na ko yóbboo nag daal di koy wan nga naaw dem mu nekk ci urus di ci sangooka di bu yàgg rek am ay gars yu costé seen bato ñetti nit salaamaaleykum ñoom alaykum salaam ah sëñ bi yow li ñu gis nii xewal gi fu mu jóge mu ne li ma ko moom su ngeen bëggee nga jàllale ngeen jàllale ma ak ma ma ma jox leen ci urus bi la ñu ndey daañu ne ko waaw loolu waaye il faut ñu seetante daal ñu ne ko waaw ñetti jóori urus te ñun ñett lañ foofu la ne waa ji kuttu ko rek sëñ bi ñoom rek ñu ne ko sëñ bi yaakaar na fi nekk sax mu ne man kenn assurance ko kon nañ nañ rey waa ji rek ñu rey ko daal dana léegi nag ñoom ñaar nañ fi toog jël ci jigéen ndaw ne ko demal ci dëkk ba nga jëndal ñu ay yàpp ak lépp nga indil ñu ñu ne parce que bu ñu duggee urus bi ci dëkk bi ci bëccëg bi dañuy tuumal dañ ko saaj dañu xaar ba guddi ñu yoon ko ndànk dugg ci biir dëkk bi waaye nag ak bala ñu dugg nag lii yàlla jox ñu nañu wane suñu mbégte ci loolu